mi fi tooge jataayu sëriñ Tuubaa bi sun boroom dolli ko fan wu gudd te ànd ak wér ba naal yi naa la liggéeyal sëriñ Tuubaa maamam ji ñu ànd ko ak moom ci barke Seex Xaadim xam naa dina jotoon a fàggu euh, ci wax ko ci jataay bi dañ koy tënk waaye di profitoo di siyaar euh, sangu jataay bi sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ibnu Cheikh ibnu Cheikh sëriñ Moustapha Bachiru Mbacke di ko ziar bu baax Mbacke di ñaan yàlla sunu borom mi nga xamante ne bii dara tëw ko mu yàggal la fi lool wéral la lool euh, di gën a feddali sunu cofeel ci yow waaye waa daara ji tamit ñu ngi gën a seere ay kàddu mbégte yoo xamante ne bii nii jëf ji nga xamante ne defal nga leen ko muy lu rëy ci ñoom ndax ni ko sëñ Xaadim waxe diggante bii nga ñëw jox ñu ci lii xat na lool waaye képp koo ko jox tamit bu dee ku yow rek xam na li ko jox bu baax te waa daara ji xam na li ñu jox bu baax kon sëriñ bi jërëjëf xam naa di profitoo di sant euh, euh, alxaaji Malick Ndiaye mi nga xamante ne bii nii mooy boroom daara ji nga xamante ne bii fii la ci daara ji ci la ñuy yëngoo Matlabul Fawzayni fii ci këram mu ngi nii toog ci jataay bi di ko beral cant koo xamante ne bii man mii ñu ko yóbbante lottu naa ci lool àggale ko waaye waa daara ji ñoo ngi lay xamal ne ñoo ngi lay ñaanal ci barkeb sëñ Tuubaa sa bëgg ci sëriñ Tuubaa yàlla suñu borom mottali ko ba nga eh, amee ko ni nga ko bëggee barke sëñ Tuubaa eh, di sant tamit eh, sëriñ Alxaaji Jóob moom di kilifa ci ñun di kilifa ci daaira bi moom it mi ngi ci jataay bi tooge na jataay bi di sant tamit bu baax sëriñ Saliou Cissé mi ngi ci jataay bi moom it di sunu kilifa di sant tamit bu baax a baax a baax sëriñ Masata Seen chef de quartier ñoo ngi koy ziar bu baax moom it mi ngi ci jataay bi di sant bu baax sëriñ Ibrahima Gueye ñii nag ñuy tudd cant ay tudd la yoo xamante ne bii dañuy yóbbaale mboolem ki nga xamante ne bii nekk na ci koñ bi day am kàddu yoo xamante ne bii rek du ñàkk ñenn ñi ni cay tudd rek dañu yóbbaale ña ca des waaye terewul cunug cant euh, mbo daj na mbooloo mépp di sant tamit bu baax sëriñ Masamba Silla mi nga xamante ne bii mooy jëw daa jëwriñu daaira Matlabul Fawzayni bii di taxaw foofu tuuti euh, di ko beral cant koo xamante ne bii waa daaira Matlabul Fawzayni ñoo la koy sant di la seere di ko seereel mbooloo mi tamit ci pëstéef gi nga xamante ne moom la sëñ Masamba Sylla def ci daara ji ba liggéey bi agsi fii tey mën naa ne ci ak doxam ak ak farloom ci la daayira bi sosoo bim jógee namm liggéeyab sëriñ Touba bi fii ci gox bi yëkkati aw tànkam dox dem ci kum ko yaakaar rek ngir liggéey bi sosu waaye tamit ñim ko dagaan ñooñu nangul ko ko lool ànd ak moom liggéey bi di jóge ko daanu ba mu toll fii te fan ci teg seen bët ñuy sàkku bu baax ci mbooloo mi tamit ñu àgg fa muy fa sëriñ Tuubaa gërëm fa ngërëm la yem rek di sant bu baax tamit mbooleem ñi nga xamante ne moom la si sëñ Masamba Sylla jiite muy daayira Matlabul Fawzayni ñëpp ndax ñoom it euh, ñu neex a jiite lanu te tamit ñu am pëseef lan ñu am ak bëgg lan Euh, xam naa ne dañuy gàttal rek waaye di sàkku ci mbooloo mi ak képp koo xamante ne bii ni yaa ngi dégg sunu kàddu nga ñaanal mbooloo moomu sunu boroom defal leen tawféex defal leen euh, seen ak bëgg ci sëriñ bi ñu dajeek moom ndax mbooloo la moo xamante ne làmboo na ay tuut tànk waaye làmboo na ay mag ñëpp ñu fas yéenee leen euh, xëcc won leen yoonu sëriñ Tuubaa wi Euh, tette leen ci yoon wi ba lu ci waay um, um, umpale rek nga xam ko te jariñu ci kon mbooloo moomu ñoo ngi dagaan bu baax ñu ñaanal leen di mbooloo moo xamante ne bii tamit euh, ñu wuute ay dëkkuwaay lan ñu wuute ay gox yu nekk lan waaye booloo gi leen sëriñ du boole def na leen benn ba nga xamante ne xàmmeetunu kii fu mu dëkk wala fii kii fu mu jóge waaye ñoom li ñuy xool ci ñoom taalibe Sëriñ bàmba yoo xamante ne dañuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa tey sàkku ngërëmal Sëriñ Tuubaa li kon yàlla na suñu borom defal leen tawféex ci barkeb Seexul Xadiim di sant tamit waa daaira daare Daarayni bi nga xamante ne bii kuréel bi nga xamante ne ñoo doon jàng léegi Matlabul Fawzayni ñoom it ñi ngi woon ci biir di leen beral cant koo xamante ne ñoom it suñ tubaab yi nga xamante ne moo mooy xool lu ko soob mu doxal dox eh, def ko ci eh, taalibeem yi moo dogal ci suñu jëmm yi ñu ànd déggoo ba liggéeyab suñ tubaab yi ni ñu koy defee njàngam alxuraan meek njàngam xasaa yi nii jamono bu ne ñu ngi koy ànd ak ñoom kon cant gi ñoo ngi koy jël di ko teg ci eh, loxol jëwriñ siñ saxeer seen sëriñ saxeer kon sëñ Saxeer waa nuuru daare ni ñoo ngi leen di cant cant goo xamante ne bii nii am na fu muy tàmbalee waaye amul fu muy yem di profitoo rek di sant tamit waa daaira xidmatul xadiim gi nga xamante ne bii ñoo bokk koñ bi waaye tamit ñoom fanu yem ci liggéeyab Serigne Touba bi ñun foofu lan tàmbalee di dem ñu it fan yem foofu lan tàmbalee li ma ci bëgg a wax rek mooy koñ bi nu bokk ba ñi bokk ci ñun ba fa kër ga yam noonu la tàmbalee ci ñoom ñoom it ñu sof te liggéey Sëriñ tubaab yi jëm kanam noonu rek lañ ko bëggee matul xadim googu ñu ko tudde nag ñu ciy leeral kàddu yoo xamante ne bii kàddu yi cant la yoo xamante ne waa Matlabul Fawzayni ñoo leen koy beral li cofeel bi nga xamante ne am nañ ko ci yéen tamit ba jël bis bi toll nii daal leen koy jébbal loolu ñoo ngi seera ne lu lu ngeen leen ji la waaye du ñoom seen leble gun leen lebal ndax ñoom it euh, ci seen xalaat yu rafet ñoo njëkk a yëkkatiku ñëw ci daara ji may ñu daayira yoo xamante ne bii nii mën naa ne ñoonu ko njëkk a defal te loolu jegeñe gin jegeñe bu doon seytaane am na dara ci pexe ci liggéey bi mën naa am loolu du nekk ci sunuy xel kon ñoo ngi sàkku ci mbooloo mi bu baax ñu ñaanal ñu waa xidmatul xadim googu suñu diggante suñu boroom gën ko ritaxal lool ba euh, li na nammay liggéeyal sëriñ Touba ñu daje ci ngërëmal sëriñ Touba xam naa ne dañuy profito di sant soxna yi nga xamante ne bii bokk nañ ci daaira bi di ci jiital soxna Ayda Diouf sunu euh, sunu sunu yaay yaay daaira bi euh, di ci toppal tamit euh, jëwriñ mama jëwriñ mama mi nga xam ne moo jiite tout tànk yi ci liggéey bi cant googu dafa nekk cant gu mënta euh, ñàkk waaye jëwriñ cant googu ñoo ngi koy jàllale ci mbooleem ñi ngeen àndal liggéey bi gis nan seen ab taxawaay ci bis bi gis naan seen ak farlu seen ak pësseef ba nin ko bëggee rek noonu rek ngeen ko doxale di sant tamit Euh, soxna waalo Mbàkke ibnu bintu Cheikh Mahmadan euh, ibnu Cheikh bintu Cheikh Mahmadan ibnu Cheikh Masamba Mbàkke soxna waalo moomu nag euh, jombul ne xam nan ko bu baax a baax a baax kilifaay jataay bi tam xam nan ko waaye dafa am ak waa daayira bi wëllëre yoo xamante ne bii loolu moo waral ñu yëkkati sunu cant di leen ko cant ndax bi ñu yëkkatee daaira di dem poroxaan doon siyaare ji sëriñ muntaxa albashir euh, moom moonu wutaloon dal boo xamante ne fa lan daloon fële ca poroxaan kon kooku am na fu mu toll ci ñun tey ji bis bi daa tombe ak ñaanu waajuram moo tax mu yebal euh, délégation am ñu andi fi ay xéewal yu doy lool Mbàkke di ko ñaanal moom mu yàgg ci lool te wér cant yi ñuy sant nag euh, xel mënu koo daj ndax li ci sunuy xel ak li ci li ci sunuy xol làmmiñ wi lottu na lool ci àggale ko waaye képp koo xamante ne bii nii suñu borom dogal na muy dégg sunu kàddu ak képp koo xamante ne bii suñu borom dogal na ñu bokk koñ bi ñoo ngi lay sant di leen gërëm ndax ñoom it liggéey bi léeg-léeg ñu daje ceeg euh, ay coono yoo xamante bii nii wala ñu déranger leen ci euh, liggéey bi te mësuñu ñu cee won lenn te dëkkandoo dafa foor kon dëkkandoo yi kon tamit amuñu seen fay ñoo ngi leen di jaajëfal di leen sant sant goo xamante ne bii tamit am na fu muy tàmbalee waaye amul fu muy yem di sant tamit ñi nga xamante ne bii suñ borom dogal na ñu jóge woon ci ay bërëb euh, euh, fekk leen ci seeni daara muy kuréel yi nga xamante ne yàlla dogal na ñu ñii nga xam ne bu jóg sa morom toog ak ñi fi toog ba léegi ñu fas yéenee jàng nga xam ne yitte ji nga xamante ne bi bi ñu leen waxee bés bi ba jamono jii nii jàpp guñ ko jàpp ànd kook ñun bis bi bu jagee kon ñooñu am nañ ci wàll bu baax a baax la ca ëpp sax man naa ne ñoom la ñoo ngi leen di sant di leen gërëm xam naa nag xel xel day fattu waaye kii may sant nii euh, ci ñun war a jiital cant gi la waaye ni ma ko waxee rek mënta mate lépp muy sëriñ daam njaay ibnu sëriñ masamba njaay ibnu seex babacar njaay cergaan di sunu kilifa du di suñu sëriñ di sëriñ boo xamante ne bii ñoo ngi koy seereel mbooloo mi ne sëriñ bu woyof la sëriñ daam sëriñ bu mën a ànd ak ay taalibeem la euh, sëriñ bu nu nangul la ñoo ngi lay sant ñaanal si si njaay nga mag yàgg fi lool Euh, ànd ak wér ci barkeb Seexul Xadiim euh, xam naa nag ci euh, gàttal rek ndax jataay bi kilifa bu xasee toog rek jëratul yenn guddal yi waaye di seereel lenn rek ci ay dog yoo xamante ne bii waa mbooloo mi ñu ngi koy jàng fi ñu yema du gudd ñu leen koy seereel di leen xamal ne waa daara ji wàcce nañ ci lu toll ci 35 kaamil jàng nañ fi alquranul trent 35 kaamil jàng nan tamit euh, wakaana xaqan 127 jàng nan fi sindiidi 134 jàng nan fi jaalibatul maraaxib 5 euh, jàng nan fi matlabul fawzeyni bi nga xamante ne bii nii moom lañ tuddee moom moom la ñu sëñ Muntaxa tuddee euh, 107 jàng nan fi midaad yi 9 jàng nan ci maddal xabiiru ak lisaanu shukru 35 Euh, jàng nañ fi tamit euh, waqaani onze yasuuru neuf mawaahibu naafi' nuuru daareeni dix tuhfatul mutadarrain soixante-trois asalaatu ala nabi def nañ ci euh, wa atubu ilayhi vingt vingt cinq cent jàng nañ fi tamit rabbi bi maa yasrafu trente jàng nañ fi ahbabtu rabbal alamin cinq kon loolu bokk ci liggéey bi nga xamante ne bii nii bokk na ci li ñuy eh, gat eh, gatandoo bis ak li ñu ko gunge ba jamono jii ñuy wax ak yéen njàng mi mi ngi continuer ñu fas yéene ko àggale ba guddi incha allahu rabbul alamin di eh, jaajëfal tamit ñi nga xamante ne suñu borom dogal na ñu bokk ci daara ji te nekkuñu fi nekk bitim réew ñoom it gis nañ seen eh, eh, jëf gis nañ tamit seen taxawaay bu baax liñ war a def lépp def nan ko nan ko daan defee kon ñoom ñu ngi leen di ñaanal bu baax suñu borom defal leen fanu nekk tawfeex ban ànd ñëwaat ànd ak ñun liggéey bi te lanu sàkku ci suñu borom yombalal leen ko ñu koy sàkku bu baax ci kilifa yi ñu ñaanal leen tamit suñ eh, mbokki taalibe yooyu nekk bitim réew xam naa Euh, kàddu yu gudd na waaye ñoo ngi jégluwaat bu baax di ziarat tamit sëñ Xaadim Njaay tasawuf mi nga xamante ne bi moo war a def conférence bi ci kanam euh, di ko euh, ziar di ko présenté mbooloo mépp rek xam naa li ci des ci kanam dinañ jëlaat kàddu àggale ko ngir gàttal rek ndax toogaay bi yàgg na te kilifa yi tamit ñoo ngi jégluwaat bu baax a baax ci toogaay bi lu ci dëng na kàddu yi ci ndongo lu xeebu lii la rek ak yen biñ ko yen waaye li ci aman yéene ci sun jëmm yi mooy lépp jub te lépp jaar yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziyaare bu baax di leen balu ak di leen balu ak dellu di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi mu naal fas yéene koo liggéeyal maamam Serigne Touba mu yeggale ko nu kawe njortam ci barkeb Serigne Touba di nuyu tey ziar suñu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw di leen ñaanal su borom guddal seeni fan bu baax te wéral leen. ba lu ñu namm ci yoonu sëriñ bi ñu defee ko nu kawe seen jor ci barkeb sëriñ Touba mu mel ne kàddu yi nag ah, bett nañu lool ndax maa ngi koy wax sëñ Aliou di di wax ne rek lii moom wax dëgg yàlla ñoom ba ñu waxee rek waxaaleel nañ ñu te fi mu ne ku ne xam na ne programme guddi la te kilifa yi dañoo xës toog kon moo tax joxe woon nañu gànt sax waaye mu mel ne ñu jox ñu si ndigal te ndigal moom dari caabi bu ëppee du ubbi bu yéesee du ubbi. kon looloo tax ñu ne nañ ci jël kàddu rek lu mu gàtt gàtt ñu sànni ko ci kon nag ñun euh, dañoo jiital ci liggéey ci ci bopp daayira xidmatul xadim waaye mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo séq daayira xidmatul xadim bi yëpp a ngi fi di wax nag sëñ Aliou ñun ñoo leen warlul ak cant waaw ñun leen war a sant ndax démb bi ñu fi tasee rek ñu koy wax di leen wax ne ku la ku la woon ne la kaay ñu liggéeyal sëriñ Touba yow yaa ko war a sant waaw ndax liggéeyu sëriñ Tuubaa ku ne xam na ne sëriñ bi dafa am dafa am ak pay donc ñoo liggéeyloo kon yéen ñi nga xam ne yéen a fexe ba sunu liggéey tàbbi ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bi ngeen di liggéey euh, ñun ñoo leen war a sant kon kàddu yi foofu daal lañ koy tàmbalee euh, tënk ko foofu rek ndax li nekk ci xol yi mënuñoo génne lépp wax dëgg yàlla ndax kàddu gi dañoo bett te kilifa yi toog kon foofu noonu lañ koy gàttalee rek Euh, di leen sant di leen gërëm bu baax a baax yéen ñëpp di ñaan bis bi ñu yàgg koo teewee mu yàgg ñu koy fekk ñun ñëpp rek képp ku fi indi woon aajo suñu borom faj ko ku fi indi woon tawat suñu boroom faj ko euh, di ñaan daal lépp lu ñu ci séntu rek yàlla nañu suñu borom defal ñu am ñu amee ko nu kawe suñu njort di wax nag li ñuy tëjee suñu kàddu ni ko moom Cheikh Mamadou Mountakha waxe woon mooy liggéey bi bu mu laal suuf ñu fexe koo yëkkati liggéey bii nga xam ne moom la ñu sumb ci daara ji ñu fexe ñu fexe yëkkati ko taw ko ba fa ko boromam bëggee muy sëriñ bi waaw ñu ngi tubaat bu baax a baax ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullah kàddu yi ñuy jël ci suñu kanami kilifa yi liñ ci jublu rek mooy suñu mbokk taalib yi buñ nekkaloon fii ci liggéey bi ànd ak moom ba suñu borom jëlee ko fii mu mel ni it lu mat bàyyi xel la ndax ñun ñëpp ci loolu la ñuy mujj kon yàlla na yàlla def suñu jëf ci ngërëmal sëriñ bi ci li nga xamante ne kat ëllëg buñ ca àggee mën a sant mën a siggi mën a texe yàlla nañu ko yàlla defal ci barke Cheikhul Khadim mbokkum taalibe bi nag ñu ngi sàkku ginnaaw bu joxee kàddu gi sëriñ bi ñëpp ñaanal ko muy sëriñ Saliou yi di wax wax rakkam magam bopp Pape Gueye mën naa jege si su ko defee liñ koy dolli la jukkal di ko fàttaliku ngir ànd gum àndoon a ñun liggéey bi ba wuy ji boromam ñun ñëpp ñu teewlu ñaanal ko sëriñ bi def ñaan incha allah. kon na ñëpp jàng Faatiha ak fukki lixlaas ak benn ñu ñaanal ko sëriñ bi doolu def ñaan. kon sëñ Pape Gueye bu fi nekkee mu jege si kon na ñëpp maase moom mooy jëmm ji sëñ dafa àndoon ci mbooloo mi dafa wàcc liggéey kon na ñëpp tàllal loxo yi sëriñ bi ñaan moom ñu bàyyi ko mu yeewee ko te sëriñ bi nee na na fi ñëpp des déglu sëriñ Xaadim Njaay tasawuf ñu ànd ko ak Serigne Abdoul Khoudous moom it mi ngi fi teewal nekkal fi Serigne bi kon na ñëpp tàllal seeni loxo te dugal ci ajo yëpp suñu borom saafara mbakki nga yàgg fi loolu te wér amiin amin ya rabbal alamin amin